Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf bisub armée bi démb lañu ko doon màggal ci Sénégal réew mi quotidien di xam ne ni kon njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay mi jiitoon yëfi ci ndakaaru rafetlu na bu baax a baax discipline ak patriotisme bi nga xamante ne moom la gis ci soldats yi ci Sénégal moom njiitu mi yokk ci ni kon noppi na ngir gën leen a kattanal ci laas quotidien njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye di xam ni daañu samp industrie de défense ci Sénégal lu toll nag ci fanweer ak juróomi milliards lañ ci war a def boobule usine nag ca Mbàkke lanu ko fas yéene samp industrie de défense bi nga xamante ne njiitu mi yëgle na ko Le Soleil yéene kay di ci xam ne ni Sénégal ci boppam moom moo fësal mbébétam ngir mën a doxal boppam ci lépp li nga xamante ne moom moo soxal armée démb ci bëccëg bi nga xamante ne moom lañ leen ko jagleel njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daal dinay waneyaat li nga xamante ne moom mooy bëgg-bëggam ngir sukkali réewu Sénégal rawatina li nga xamante ne d'accord daal dinañ koy xaatim bi toll ci fanweer rek juróomi milliards bi nga xamante ne nguurub Sénégal moo ko signé ak industrie Sénégal de véhicules militaires ngir samp usine bi nga xamante ne mën na di defar lu toll ci junni auto militaire ci at mu nekk te ci diwaanub Mbàkke lañu ko war a samp lii moo tax l'info yéene kaay gis ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye fay daal luy mbëbëtam jamono ji muy souveraineté militaire ndax Sénégal mën a doxal boppam fa yi di dox législative yi di jege enquête yéene tey jàngat gi mu def mooy xëccoo taw bi nga xamante ne war na tar lool ci ndakaaru Pikine ak diwaanub Ndar Géej yéenekaay bi di xam ne ni kon enjeu yi bëri na lool ci ñetti gox yi le ndakaaru di capital bi rawatina Pikine tamit ci banlieue ba xëccoo bi war a nekk diggante Pastef fak takku wàllu Sénégal Ndar Géej mi yéenekaay bi di xam ne ni kon département bu stratégique la muy laaj ana kan moo war a jël ndam li fukki fan ak ñaar suñu naataango yi di addu ci digle yi nga xamante ne ñoom candidat dañ koy def jëmale ko ci électeurs yi nga xamante ne lu bëri la ñuy xaar ci ñoom ñoom quotidien di ñu yëgal ni juróom-ñaari fan kepp lañu ñu dese jamono ji ngir mën a wax askan wi li nga xamante ne moom la ñuy dégg laata élection bi ñu jàpp fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bi yéeni kaay groupe sud communication bi di xam ne ni fi ñu toll nag mel na ni daj dëpp gi nag léegi mu jot ba tax candidat yi ay bis bi des nag lu waaye mën dina ko def ngir yaakaar a am majorité ci assemblée nationale enjeu yu ñuy xaar ci assemblée nationale bi ñu dégmal Walf Quotidien nee na bëri na lool ndax lu ñuy dégg ci campagne bi mel na ni coowal homosexualité amnistie ba ci haute cour de justice moom dinañ ko fa dégg moo tax campagne bi moom jamono ji tar na lool sonko moom jamono ji bàyyiwul dara ndax yor-yor bi mu ngi ñuy xamal ni démb ca diwaanub njàmbur foo sandi mbatt mu tàkk mbooloo mu takku ñoo dar njiital pastef bi lu ko dalee Kébémer Louga ba ca diwaanub Linguère moom Ousmane Sonko ba mu yëkkatee kàddu wax na ci solo si nga xamante ne moom la secteur privé bi am ba ci diaspora bi tamit ci lu ñel référentiel Sénégal 2050 bi jamono ji Ousmane Sonko di déroulé nag nag direct news di ñu xamal ni opposant bi di Macky dafa mel ni li mu doon wax gaa yi moom lañ ko def jamono ji ndax dañu ko réduire à sa plus simple expression li ko waral bokk na ci lajj gi nga xamante ne def na ko ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mars bi wees ci élection présidentielle bi moom Macky Sall yaakaar ni sénégalais dinañ ko baal jaarale ko ci élection législative yi mu nekkoon njiitu réew mu am doole lool waaye suñu naataango yi gis ni jamono ji dafa mel ni dafa dellu nekk ab administrateur groupe WhatsApp tollu xamante ne moom mooy coalition am li jaaxal nag direct news mooy njiitu réew ma woon ci boppam jamono yi muy sàkku sénégalais yi woteel ko moom ci wàllu boppam du wote ndax du ñëw ci sénégal moom Macky Sall digganteem ak Amadou Ba l'évidence yéene kay di sampab laaj ana kan moo trahir moromam ndax diggante gi dafa mel ni dañuy nasaxaale rek waaye ba léegi neexul benn yoon diggante gu neexul kay mooy Sonko ak Anta Babacar Ngom ndax Walf Quotidien mu ngi ñuy xamal ni jamono ji ñu ngi ci geeru plainte dëgg gannaaw fitna yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ca Diourbel Vox Populi di ko dëggal ne Pastef ci boppam moo porté plainte Anta Babacar Ngom partiyom di arc mel ni kuy tontu jëmale ko tamit ci Ousmane Sonko fitna gi ñu nemmeeku ci campagne gi ci biir Le Quotidien ñu gis ni ay coup yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci campagne gi Pastef mi porté plainte jëmale ko ci Anta Babacar Ngom moom borom sédiment gis ni lu nu koy tuumal ay mbirub caaxaan képp la loolu nag tax na ba forum civil jóg di artu maître Khouraychi Ba jóg di artu nga xamante ne am na liberté provisoire la tribune gis ni libération Nabou Leye ci boppam jur na coow lu rëy ci Sénégal gannaaw double meurtre bi nga xamante ne moo amoon ca Pikine Technopole jamono ji nag procureur général ci boppam moom la ñuy interpellé l'observateur mi wax ci coowal Nabou Leye bi mel ni kuy sulli lan moo waral fecckat bi am ab liberté provisoire bi nga xamante ne jur na coow lool yéenekaay bi def reportage ci kër Aziz Dabala ci boppam foofee ay mbokkam ki jege ñaaleem ba fut la def ndax li ñu àttekat bi sëggagu ca dossier bi ñeel Prodac libération ci la xëyee tey di yëgle ni kon information judiciaire lañ ci tijji Mamina Dafe nag ak Ibrahima Cissé altine gi ñu dëgmal ci lañ war a xam fa ñuy mujj ak yoon gannaaw ba ñu amee ñaareelu retour de parquet Nicolas Jackson am lu rëy lu koy xaar niki tey ji Rewmi Sport duñu xamal ni moom attaquant bu sénégalais bi ñu ngi koy xaar clubam bi di Chelsea ndax ëllëg moom ak Arsenal ñooy laale ci lu soxal fukk ak benneelu bëccëg championnat bu Prime Sénégal